19h euh, sur la télévision future euh, Média euh, nu nu koy defee saa su heure bu jotee xam ngeen ko moom mooy soir d'info gannaaw le 20h dinañ fi dalal ki nga xamante ne mooy le directeur général des grands trains du Sénégal ndax nag dañoo bëggoon ñoom waa nguur gi désenclaver localité yu bari ci biir réew mi ma waraloon depuis 2020 ñu tëral fi programme boo xamante ni c'est un programme ambitieux boo xamante ni am na lu bari lu nekk ci biir ana fan lañ si toll dinañ ci waxtaan ak directeur des grands trains tey itam ci jamono bi nga xamante ne ñu ngi wax euh, l'emploi des jeunes euh, programme boobu ndax euh, dafa defoon prévoir woon na juróomi téeméeri li emploi direct yoo xamante ne nee nañu dinañ ko jox ndaw ñi sur la période 2020 2025 loolu yëpp dinañ ci dikk ak Samba Ndiaye gannaaw le 20h léegi-léegi dañuy dalal Arona moom nag moom secretaire secrétaire municipal la ca jula Kolom nekk ci département euh, de Kolda euh, moom tam dafay jiite mouvement euh, conscience citoyenne ànd defar Tëngéej maa ngi lay nuyu monsieur Sarr. ñu ngi lay fay Bintu di nuyu say téléspectateurs. waaw xam nga ne nag tey jii euh, ñu ngi dooree euh, soir d'info ci xibaar bu tiis boo xamante ni léegi la wadd moom mooy euh, génn àdduna ki nga xamante ne mooy doyen des juges Samba Sall fan yii yëpp ñu ngi doon wax ci ci moom ndax nag xam nga ne moom moo yoroon dossier Ousmane Sonko waaye nag feebar na ko tëraloon fan yi la ñu génn sànq kon moom Samba Fall daal di ne Samba Sall daal di ne gaañu ca hôpital principal. bi nga xamante ni foofu lañu ko euh, rentré woon ñu ngi jàll képp euh, magistrat euh, ci Sénégal ñi nga xamante ni itam moom mooy famille Samba Sall ma Arona Sarr maa ngi koy wax sànq que yow da nga am benn mouvement conscience tuddee ko mouvement conscience citoyenne ànd defar Tëngéej Tëngéej nag bu ñu ko waxee moom mooy moom mooy Rufisque gis bu baax nag yow ngay nga nekk dans le social ah bu ñu xoolee sur le net toujours Samba Sall avec son équipe mi ngi ci ci biir biir askan wi euh, di leen jàppale le développement à la base par la sociabilité lan moo tax nga jubbu ci. waaw ah, merci beaucoup Binta di la remercier ci invitation bi di nuyu aussi suñu mbokk waa Tëngéej yi nga xamante ne tey jii ñu ngi seetaan di nuyu particulièrement les membres di mouvement conscience citoyenne ànd defar Tëngéej. le mouvement conscience citoyenne ànd defar Tëngéej c'est un groupe de jeunes de femmes d'hommes yu nekk Tëngéej. gis situation Tëngéej mu metti loolu Tëngéej di manqué de tout infrastructure amu fa tali yu baax sax amul Tëngéej amuñu hôpital yu baax école yi ñu ngi màgget Tëngéej manque de tout ñu gis ne situation bi metti na bu nekkaat ñun nañ taxawal suñu mouvement parce que gis nañ ni politiciens yi aussi li leen dénk doxaluñ ko ni ñu ko war a doxale ñun ñu ne duñu mën nekk ay acteurs di seetaan ñu engagé wu dans le dans le développement local di liggéey pour améliorer les conditions de vie des populations à Rufisque mhm. si loolu ñu ngi siy mëne ay actions de solidarité di si mëne ay actions sociale def nañ def def naa ak mi ñu weesu bi Covid bi jógee ñun ñoo pompé waat avec euh, le brigade euh, du service d'hygiène ñoo pompé waat lépp luy école mhm. pompé waat hôpitaux yi ak centre de santé yi ak poste de santé yi pomper lépp luy mosquée pompe marché centrale bu Tëngéej. Mhm. bu loolu weesoo aussi gis nañ bu inondation yi amee ñun dañ ne duñ seetaan sinistre yi nga xamante ne train express régional fi mu jaar moo tax ndox mi dem seen kër muy kolobaan dañ leen yóbbul motu pompe yóbbul leen ay kit d'hygiène pour soulager leen un peu bi aussi lépp li nga xamante ne day toucher à l'environnement parce que te ngeen ñëpp naan dafa salté loolu moom na koy gis nii. ñuy appuyer des initiatives allant dans le sens de rompre avec l'insalubrité à Rufisque. ñu jël di appuyer les initiatives au niveau des quartiers bu ñuy def set setal ñu ñëw taxaw appuyer leen bu ñuy def reboisement aussi mouvement bi ut ay plan ñëw appuyer. Mm-hmm. mouvement bi day continuer même dans le domaine de l'éducation bu ñu gisee ouverture des classes ñu jàppale parents d'élèves yi en fourniture scolaire récemment aussi dem nañ si daara yi def nañ dix daara appuyer leen parce que gis nañ ne condition de vie des talibés dafa xaw a metti yemuñu foofu dem nañ prison des femmes bu tëngee def fa don parce que ñu fa nekk aussi ay nit la yoo xamante ne seen coobari dugalu leen fa. Mm-hmm. ndogalu yàlla mën fa yóbbu. ñu dem taxawu leen le 4 avril célébrer la fête de l' indépendance ak ñoom jox leen don bu consistant yemuñu foofu am na ñoo xamante ni seen xel neexul ñu def leen ci benn centre bu tudd delloosi ma bi dem na aussi le 4 avril taxaw foofu jox leen don parce que ñi xamante ne seen xel neexul tey jii seen place nekkul ci tali bi dañ leen war a jàppale encadrer leen faj leen ba ñu mën a dellu si suñu biir. Mm-hmm. mouvement bi day appuyer ces initiatives là di appuyer aussi initiative dans le sens d'améliorer aussi les conditions de pratique des lieux de culte dañuy dem di jàppale juma yi récemment dem nañ juma bu mosquée euh, Kër Sëñ Touba yóbbu fa don en ciment bu cinq tonnes de ciment mm-hmm. entre autres mouvement bi daal ñu nekk au côté des populations. mouvement bi tey fan la jëlee euh, xaalis bi muy liggéey bi muy maye. waaw mouvement bi nag. Mm. wax naa la léegi ne c'est des jeunes des femmes. Mm. mu nekk ay salariés samay nawle. ñuy liggéey mais di def sacrifice def don de soi bu ñu amee événement wala manifestation ku nekk ci li ngay liggéey li ngay am. Mm. nga jël ci tuuti def. bu ñu dem prison des femmes. jigéen ñi ñoo summi seen i yére. Mm-hmm. nga xamante solatuñ ko woon. Mm-hmm. ñu ñëw tekk mm-hmm. ku nekk def don ñu daal di yóbbu. mouvement bi noonu lay fonctionner. mais gis nañu ko Arona ah vraiment euh, Tëngéej moom wax ne dafa salte sax yàq say wax la euh, daanaka ñi fa jaar ñëpp ci autorité euh, politique da ngay jaar ba jàll Tëngéej fa mu nekkoon rek lay nekk. yéen bu ngeen bëggee mouvement citoyen def euh, engagé euh, liggéey boobu dina métti si yéen parce que dafa soxla ay investissement yu yu des investissements lourds lu tax autorité politique yi nga xamante ni ñi ngi tëngeej bari fa lool du ñu euh, plaid def le plaidoyer pour tëngeej mën a changer de visage en tout cas ñu ngi profité ci sa tribune di la wax ne acteur politiques yu nekk tëngeej nañ nekk aux côtés des populations mm. parce que askanu tëngeej sonn na et soxla nañ ñu leen taxaw tey malheureusement pour nos hommes politiques duñ leen gis tëngéej ci plateau télé yi ak rajo yi lañ leen di gis wala ñu leen di dégg. xaw ma dañ allergique population yi wala Covid bi la mais nañ au auprès des populations saafunte ak nit ñi xam seeni naxar mën ci poser ay actes. Mm-hmm. ñun foofu lañ leen di woo. Mm-hmm. te mouvement bi ci loolu lay œuvrer. waaw léegi maire bi moom lu mu def tëngéej bon Binta boo xoolee Tëngéej wax naa la léegi situation bi fa ne. Mhm. Tëngéej nous manquons de tout. goudron bu baax sax amuñu ko donc c'est un des équipes dirigeantes yu jaar Tëngéej yëpp tey jii Tëngéej amuñu infrastructure yu moderne amuñu équipement mhm. adéquat donc gisuñu leen te ñun. loolu tax ñu soobu tey ji si politique. ak rigole yooyu fa nekk euh, tunge sa euh, foo ko fekk dafa dafa mel lu humide daal euh, yooyu changé wul daal décor. ah tunge changé wul ah. état de développement bi mu nekkee dafa catastrophique. Mm-hmm. bu ñu mënoon lancer SOS. Mm-hmm. dinañ ne nañ lancer SOS pour Rufisque. gis nañ tey ji ay ville de Guédiawaye. Mm-hmm. ville de Pikine ñoom ñëpp dem nañ bàyyi Tëngéej alors que Tëngéej si c'est l'une des premières du Sénégal. depuis l'AF absolument ville prestige la ville historique mais tey jii Tëngéej dañ ko seetaan ñu ngi lancé un appel au président de la République à tous les fils de Rufisque aussi ñu jug taxaw ci situation Rufisque mais maire bi bari laaj naa la lu mu liggéey Tëngéej dafa le bilan au moins yow en tant que euh, doomu Tëngéej euh, lan nga mun a wax ne lii la maire bi def ah gisuma ko de amul lenn loo xamante ne teg naa si bët maire yëpp maire yi nekk Tëngéej ñi fa jaar yëpp. ñi fa jaar ñi ñuy gérer boo leen waxee ñu ne charge salariale bi moo diis mais maire yi en terme d' impact sur le vécu de populations de Rufisque. gisoo ñun gisuñu ko. nee naa la récemment école buy tijj parents d'élèves bi dañuy taw fu ne pour fourniture loolu maire au moins maire bu taxaw war na ko mën a régler waaw <laughs> sécurité sociale pour ñuy faju amul. ñun mouvement bi tey jii dañu sonn parce que booy def social dañuy foog ne da nga yor ay moyens. alors que on a seulement la volonté. absolument ñu ngi xalaat sax taxawal benn mutuel de santé à Rufisque. def promotion bi. pour que population yi gën a mën a am. sécurité sociale. hôpital bi nekk ndax am na les moyen qu'il faut pour euh, prise en charge yi mën a jaar yoon euh, Youssou Mbargane mooy seen hôpital. mooy Youssou Mbargane. Mm-hmm. Youssou Mbargane def naa ne plateau technique bi aussi demeewul noonu quoi. Mm-hmm. war nañ ko jàppale. mën a xool mu am hôpital digne de son nom. Mm-hmm. waaw. alors euh, yow nee na euh, secretaire municipal Dioula Kolong nga ca ca département bu Kolda di de beneen département boo xam ne aussi euh, lu yàlla xam doy na ña mais sa sa mouvement bi mouvement citoyen nga wax mais est-ce que da am ay ambition politique pour Rufisque. waaw mouvement bi am na ay ambition quand mm-hmm. yow mi ko diriger. waaw man mi ko diriger également. parce que maay président bi maay leader mouvement bi. bëgg nañ conquérir les municipalités de l'est de la ville parce que dañu am projet de ville pour Rufisque. am vision pour Rufisque. pour ñu mën a appliquer que. il faut ñu nekk dans les instances de décision notre vision pour Rufisque c'est de fair de Rufisque une ville moderne. disposant am ay infrastructures ak ay équipements yu adéquats suffisant et appropriée. léegi fi ngay jaar ci sa projet de société euh, ci lan nga ko tënk tey pour changer euh, visage du fisc tey jii boo nekkoon le maire de de lan nga prévoir. waaw moom laa doon wax léegi nii. des infrastructures de adéquates suffisantes et adaptées. Mm. une politique aussi modèle de gestion des ressources parce que Tëngéej am na ay ressources yu ko permettre tey ji mu développé wu. ressources yi fu mu jógee. waaw xam nga Tëngéej ville bu mag la. Mm-hmm. tey jii le budget avoisine les mais en terme d' impact doo si gis dara. charge yi salarié. charge salaire <laughs> bon il ñu xoolaat vraiment doxalin bi mën a gën a réorienter la politique de la municipalité. Absolument. dans l' accès aux infrastructures ba ñu mën si gis seen bopp. léegi bañ def des dépenses de prestige. est ce moom ko jël aussi. waaw Rufisque Est fa laa juddoo fa laa màggee. Mm-hmm. def naa aussi fa la ñu lancé le mouvement. Mm-hmm. fa la juddoo aussi. Mm-hmm. fa ëpp assise au niveau de Rufisque. alors euh, président moom digg na ndaw ñi daal euh, quatre cent cinquante milliards encore ndax euh, dañ ko envoyé message boo xam ne nee na décrypté na ko bu baax ndax ndaw yi yoruñu liggéey vraiment je maa ngi yaakaar ne aussi ndaw. Tëngéej itam ils sont dans la même situation. Euh, tey jii boobu ba léegi euh, le le la politique d'emploi euh, au Sénégal pour les jeunes ça ça pose problème aussi noo ko gisee ak li président waxati ci milliards. ndaa Bint sa question bi dafa am solo. Mm-hmm. parce que ñun bu ñuy dem ci askan wi ndaw yi dañuy jàmbat trop le ferk que amuñu liggéey. Mm-hmm. ñuy gis situation bu juddu ndoo ak say morom ba tey liggéey ñu mm-hmm. ndawu Tëngéej ba tey di ut fu ñu liggéey chaque jour parce que ñun on est en contact permanent depuis deux ans avec les populations mais dañuy joytu ñuy wax ne dafa jot tey ji président décision bi mu jël mm-hmm. territorialiser l'emploi au niveau des collectivité locale ñu ngi koy saluer di wax ne bu mu si dem ak demi mesure mm-hmm. na fexe tey ji ñu créer des salariés agricoles parce que fu mu toll nii bu ñu bëggee résorber la gap. maanaam yóbbu leen ci mbay mi. l' agriculture au vrai sens du mot. Mm-hmm. moo mën a régler le problème de l' emploi. Mm-hmm. avec un grand A. englober les secteurs de l' élevage et de la pêche. parce que. mais ci xale yi dafa mel ni bëgguñu dem mbay. bu ñu moo tax ma ne la dañ leen utal ay salaire parce que Sénégal ñun dañu yàgg naax dañu gëmloo ne ku amul salaire. Mm-hmm. amoo sécurité. léegi nañ leen d'abord essayer wutal leen ay salaire ñu commencé liggéey. bu ñu nekkee ci liggéey bi tey jii bu atteindre autosuffisance bi parce que tamit c'est possible ah. y a beaucoup de terres arables au Sénégal. de terres cultivables am na. te jeunes yi bëgg nañ dimbali seen i njaboot. nañ leen encadrer former leen. wan leen nan leen ñuy béyee. Mm-hmm. demee di ci gis seen bopp ñu leen fay nag lu conséquent pour que ñu mën toog. métier mu doon métier bu am attraction pour que xale yi mën si des mm-hmm. bu ñu produire également il faut que mu am accompagnement mm-hmm. parce que tey suñu équipement yi dafa des mm-hmm. les producteurs manque de chambre froide boo produire doo am foo ko denc conservation dafa am solo des unités de transformation aussi il faut que ñu xalaat que ah parce que di bayte doo transformer ça pose problème xool li xew si mango bi mango yu yàqu waaw zone Casamance bi ak yooyu euh, li yàqu noonu nañu créé ay unité de mmh. transformation mmh. xale yi mën si liggéey mmh. mën a toog ñuy conserver mango yi wala production yi ñu am xool tey jii soble bi rek soble bi li ñuy produire mën na autosuffire Sénégal mais malheureusement boo demee fi ñu koy produire ak fi ñu koy dencee amul benn benn accompagnement moo tax li ëpp si production bi day yàqu ñuy continuer di importer soble ak pomme de terre ak pomme mhm. li ñu produire Sénégal doy na. Mhm. ñu utal ay chambre fort ñu fay mën di denc soble yeex pomme de terre yeex li nit ñi di mhm. la leneen li c'est de créer des unités de transformation. absolument pour que jeunes yi mën a liggéey. parce que beneen bi aussi ñun ñu dëkk Tëngéej. tay ji avec euh, la mer gis nga li xew. il faut que état bi revoir sa position avec les bateaux de pêche. ah moom laa la bëggoon yu bari dematuñu géej. parce que géej géej gi amul. jën waaw waaw mais loolu état bi na revoir contrat yi. Hmm. bàyyi jeunes yi dem géej mën a bàyyi ñuy respecter repos biologique bi. Euh, hmm. buñ ko defee jën dina mën a amaat. te jën yi buñ ci pare mën nañ créer ay unité de transformation aussi des hmm. produits halieutiques. géej yeex yooyu. ñun suñu espécialité la war nañ ko mën a importer. de la même manière que war nañ mën a conserver jën bu ñu amee ay excès mais gis nga parfois ñu ne jën dafa tuur foo tourner ñun ñu dëkk Tëngéej boo demee sa plage ba jën yi dañuy trainer alors que tey ji bu ñu amoon ay chambre froide bu ñu amee excès dañ ko mën a denc te loolu yëpp ay niche la de d'emploi yoo ah, xamante ne buñ ko buñ ko gënoon organiser jox leen euh, les jumtukaay qu'il faut euh, jeunes yi dañ ci mën a liggéey dëgg la Euh, te déjà ñu ngi annoncé aussi ay ay ay ay financement ay euh, on met beaucoup d'argent aussi y a bu def démb euh, son troisième anniversaire annoncé na financé na ñu bari mënul ko mënul wax ñan la parce que mënul joxe tur yi financement yooyu aussi yow naka naka jeune yu tënge ji naka lañ ko gisee ak naka lañ ko dundee comme yéen a nekk en contact chaque fois. financement yi def naa ne. tënge jeunes yi jeunes yi amul benn impact ci ñoom def naa ne bu ñuy financé waat il faut ñu xoolaat système bi te yaakaar naa ne li gën a wóor mooy tey jii créer des centres de formation au niveau des communes. yuy forme jeunes yi d' abord. la formation dans différents métiers. parce que aussi nit boo ko financé te amul xamul lu muy def. c' est peine perdue xaalis bu ah. day réer. Ah dañ former jeunes yi accompagner leen ci seeni projet bu ñu def ay projet individuel mais nañu def ay projet collectif ñu boole leen def ay financement yu conséquent pour man mën nañ ci génne euh, sur la supervision des communes mhm. parce que commune bu nekk am na lu spécifique chez elle buñ ko ci appuyer jox leen les moyens mën nañ ko développer mhm. te buñ ko développer tey jii les résultats escomptés mën nañ ko jot surtout dans le domaine du sous-emploi waaw justement loolu mooy loolu mooy mooy mooy problème bi yaa ngi koy wax sànq euh, ne géej gi géej gi amatul amatul jën te Rufisque xam nañu ni euh, dëkku mool la euh, ñu bari sax dañu préféré woon un moment jël géej gi ñu ne dem barsa ak ak Barsax Euh, mais aussi pour am problème le ministre de l' emploi déggoon nañu ko mu ni euh, du emploi des jeunes ne se pose pas l' emploi des jeunes parce que état bi euh, diggee woon na fi 500000 après mu ñëw à 1 million peut-être li ñu koy waxee employabilité bi moom moo posé problème. est-ce que jeunes yi aussi waruñu jàng boole ko mu nekk adéquation formation ak ak étude. ah def naa ça de pays. suñu système éducatif bi tey jii moo montré ses limites war nañ ko réformer. parce que jàng ba pare amoo métier mënoo def dara tu n'es apte à rien faire ça pose problème dans ce pays là il faut ñu waxante dëgg aussi jeunes yi amuñu liggéey boo duggee ci quartier yi di nga xam ne liggéeyuñu te bu bëggee développer suñu Sénégal il faut que cette force vive là ñu accompagner ko moom laa doon wax léegi nañ créer ay centre de formation au niveau de chaque commune former jeunes yi à plusieurs métiers bu buñ paree ñu permettre leen ñu am accès au financement mën a dérouler seeni projet accompagner leen mais financement yi ma gis muy dem jëmalewul kanam de. <laughs> parce que résultat ba gis nga ko euh, ils ont déversé leur colère dans dans la rue euh, la dernière fois et puis euh, le le, le secteur informel aussi. joxuñu ko euh, gëdd bi nga xamante ni am na kenn xamul pourquoi mu am cette absence de volonté politique parce que aussi ñoom nee nañu 70 pour cent pratiquement ci la ñuy créer emploi il faut le secteur informel je pense que aussi jot nañu ñu jox ko gëdd. xam nga pour man waruñu écarter benn secteur ah. ça doit être inclusif yi gën dem ci vers les populations. Mm. waxtaan ak ñoom ci seeni bëgg-bëgg. Mm. créer un dialogue. national du dialogue nag bi ñuy gis nii Sénégal. ak dialogue bi moom defe naa ne c'est autour des partis politiques et quelques responsables de la société civile. loolu dama ko dama koy ñaawlu parce que dialogue bi il faut que mu nekk un dialogue participatif. ñëpp bokk ci ñëpp bokk ci. ñu jël que dans les communes. dem daale les départements soog ñëw dans les régions. bay def mhm. au niveau national. parce que ñi nekk ci dialogue bi def naa reflété wuñu aussi Sénégal yëpp. <laughs> inclusivité dialogue boobu moom yaakaar naa ne président waxoon na sa yokkaat na deux mois mais dialogue léegi la gën a euh, am solo comme ni ñu ko waxee euh, ku ci nekk surtout les les jeunes euh, ñu laaj leen lan la ñu bëgg moo gën ñu leen di imposer loo xamante ni bëgguñu ko monsieur Sarr sa sa dernier mot lan lay doon. waaw di wax ne rek ñoon acteurs politiques yi nañu gën a delloo xel population yi. parce que tey ji population yi leen soxal mooy naka la ñuy def ba améliorer seen quotidien donc bu ñuy poser ay acte dañ koy poser si lu mel noonu fexe jàppale sénégalais yi moo gën nekk ci plateau télé yi ak rajo yi rek di wax. ak li fa nekk ci euh, gouvernement bi également. nañu gën a tijji waxtaan bi ak secteur yi parce que mënoo jóg rek di engager ay réformes. te diisoo ko ak population récemment ñu ngi naan dañuy supprimer la ville de Rufisque hmm. yow la moo ci sa xalaat mais lu wuñ ko Tëngéej ville historique la ville hmm. prestigieuse hmm. mënoo jug tey jii nga ne da koy dindi ville bi te waxtaanoo seex waa Tëngéej c'est pour diir que ne rek boo nekkee njiit da nga war di waxtaan ak sa askan waaw pour que say décision mën a nekk loo xam ne day day nekk en adéquation ak la volonté des populations. yow wan parti nga bokk fii tamit. waaw ñun nag gis nga suñu mouvement bi. Mm-hmm. c'est un mouvement de jeunes bokkuñu benn parti. Mm-hmm. nekkuñu parti au pouvoir nekkuñu opposition. Mm-hmm. lu ñu soxal mooy suñ développement dëkk. muy Tëngéej. Tëngéej lañ bëgg mu nekk une ville moderne. c'est ça le sens de notre combat. présidentielle est que xalaat nga ko. pour le moment amaguñ si yow yaa ngi ci maire bi pour le moment. pour le moment combat bi ñu am mooy améliorer la situation à Rufisque. Oui. notamment les conditions de vie et le cadre de vie. absolument loolu daal mooy suñu combat. moom lañ koy mën moom la ñuy mën à Rufisque avec toutes les forces vives di ci tendre la main également à tout les Rufisquois. Mhm. ñu ñëw ànd defar Tëngéej. waaw ndax fi nga dëkk nag foofu da nga ko war a defar surtout que nag plateau de télé yi rek euh, bu mu doon euh, benn occasion nga naan def naa lii def naa laa boo ko waxee aussi à l'instant même lañ lay lañ lay démentir te euh, man gis naa ko ndax dalal nañ fi ku dëkk Tëngéej mu wax lan la fa def euh, ci à l'instant même si lañ ma contacté ne ma defu fi dara euh, donc yow li nga def daanaka population bi ñoo ko ñoo ko ñoo ko wax te itam bu ñu demee ci réseau sociaux yi dinañ ko gis donc yaakaar naa ne ku nekk fa nga nekk boo jàppee bu ëllëgee Sénégal bu nekkul tam ci développement dina dina tane ndax nag réew mi metti na àdduna metti na Covid 19 gën na koo yokk kon liggéey jot na wax ji ak waxante lu lu ñaaw li gërëm la bu baax euh, Arona Sarr. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant. Euh, ñu dem publicité dellu si waat ci plateau bi.